man maa ngi tudd Mourtala Sey nekk ci commission administrative. commission boobu lépp loo xam ne ay acte administratif la lépp loo xam ne mooy accompagner yeneen commission la lépp loo xam ne jëm ci wàllu outil de gestion yi war a teg la ba léegi bi mën a dem loolu day wàllam lépp luy convocation réunion lépp luy compte rendu lépp luy taxaw réunion bi ba sur le plan administratif dara du sooxe. loolu commission boobu moo ko yore di ko def muy commission kon administrative ñu créé beneen commission muy commission financière commission financière kenn ku nekk xam na ne bi sëñ bi wootee murit yi dañuy daw ñëw di joxe seen alal kon compte bancaire yi ñu war a ubbi compte Wave Orange mën monétique yi ñu war a ubbi yëpp seen liggéey de doon ubbi ko waaye tamit ku waaxu ba ñëw joxe sa xaalis nañ tëral ba ku ñëw ñu bind lay reçu ba loolu mën ko documenter bu mu ma àgg fa war a àgg loolu tamit de seen liggéey waaye du yem ci loolu suñ tolloo ba ñi nga xamante ne seen jëf du xaalis waaye ceeb la diw la suukar la ciment la kafe la ñoom ñëpp su ñëwee tamit ñoom mu am bureau intendance boo xam ne moo koy enregistré entrée bi waaye suñ demee ba mu war a génnaat nag di dem ci ñi nga xam ne ñoo tax ñu indi ko ñooñu ñoo koy bind ñoo def utilisation yi ñooy def bon bon de sortie yi ñooy génn équipe yi war a dem yëpp kon finance mënta ñàkk ci liggéey bi ñuy def nii nga xam ne benn domaine boo xam ne bu ñu mbayi doo am bon bu bind administration dañu signé finance dañu signé intendance dañu signé ñu dem mu génn loolu tamit ñu am ay ordinateur de base yi di ko renseigner waxtu wu nekk lanu lu nekk seet nax dem na fa war dem ak lépp ñu ko topp di ko saytu loolu mënut a ñàkk ci liggéey bu ñu ci yoon. moo tax kon am na un bureau de contrôle et de vérification loolu dafa ci li ñuy def nii lenn lenn lu ñu sàgg na ci wàllu woowu amul ndax ay mbooloo ko seq. te suñ ko seqee kenn ku nekk waxtu wu nekk war naa gis dal xelam war naa xam ne lii lu jëm barab loolu nag nosuñ liggéey moo ko waral mu am beneen commission moo xam ne sociale commission sociale ñoom seenub liggéey ñi nga xam ne ñoo loru di sakku ndimbal ñu bari dañuy ñëw fii ñoo leen di teeru ñooy wax ñoom ñoo leen di dalal am na yoo xam ne sax ñooy jóg jëmal seen bopp ba xool lañ leen wax lañ leen déclaré loolu lépp ñu xool ko waaye ndimbali tamit suñ demee war ko joxe ñoom ñoo koy joxe kon ñoom nag mbooloom mu bari lañ ñetti mbooloo kenn ku nekk joxe nga ci ew nit waaye dañ ko soxlawaat fi ñu toll doyut ndax ndimbal ndimbali tàmbal nañ ko séddale naam waaye dañ soxlawaat mbooloo mu bari moo xam ñoo dem ci gox yëpp mën ko séddalee les recasement yi ñi nga xamante ne gis nañ ne barab yañ nekk mënuñu fa nekkate foo ñu wutal leen feneen ñoom seen wàll la ñoo jóg ñoo leen wutal feneen gis ngeen ne wallu fi nga xamante ne ñan ñu fa dalee ay nit loolu liggéey social li si am solo lool soo dalee nit ci barab waaye lekkam naanam ak lépp li ci ànd kon loolu yaakaar na commission sociale liggéeyam am na solo mu am commission technique commission technique ñoom li ñu yore ci moto pompe kenn xamu nu mu toll waaye ñi ngi ci terrain bi ay équipe lañ def ñetti mbooloo yooyu yëpp dañoo boole seen technicien boole seen doole boole seen i pompe boole seen lépp nekk si terrain bi di fexe ndox mi nekk ci mbedd yi nu ñu ko mën a pomper ba mu ndox yi nekk ci kër yi nu mën a fexe ba mu deñ loolu nag liggéey bu yaatu la ñu ngi ci di ko def waxtu wu nekk suba guddi ngoon waxtu wu nekk day équipe bu dynamique boo xam ne mi ngi ci terrain bi di ko liggéey kon loolu tamit muy ab équipe ñoom équipe communication muy yéen ñi li ñuy def day laaj mbooloo mi di ko gis day laaj mbooloo mi di ko xam ndax li nga teg sa bët gisal ko sa bopp déggal ko sa bopp yaakaar naa ne dana wuteeg loo xam ne eh, eh, wut dana wuteeg lu wuteeg loolu kon loolu moo tax liggéey bii ngeen def ni tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax ngir yéen a ngi dem ci barab yi di wane liggéey yi di wane ni muy évoluer di wane ni muy avancer di wane tamit ñi nga xamante ne munite nangu leen Cheikh Modou Mountakha Mbacké nañ koy wuysee ci woote bi nga woote na ko loolu lu am solo la. man may Baye Alla Niang bokk ci commission technique kuréelu junnatu li man nazamaawu mooy commission bi dem ci nit ñi maanaam di leen wallu ci ni ñu nekke ci anam yu nga xam ni lu ñuy xalaat la. lu ñuy solal la waaye lu ñuy tëral la boole ko ak i moyen aussi bien euh, logistique euh, euh, ay machine ki yëf wande boole ko ak ay nit ñu nga xam ni ñoom ñooy dem pour fekk nit ñi wax dëgg yàlla ci terrain bi pour que jafe-jafe yu nu nekk ñu wallu leen ci ñi nga xam ne moom la ñuy liggéey nag kuréel gi nga xam ni mooy wala commission bi bi nga xam ne mooy commission technique dañu ko séddale ay pàcc ndax am na permanence bu nga xam ne moom moo fi des toujours pour saytu lépp di lëkkale di coordonner lépp am na secrétariat bu ci nekk bu nga xam ne lépp lu fi ñëw ci ay saytu moo koy kel rapport yeeg expression de besoin yëpp secrétariat bi moom moo koy def waaye am na beneen commission bu nga xam ni commission de prospection lay doon su commission de prospection lay doon nga xam ni quelque fois fu ñu wootee wala fu ñu wax ni am na lu fa nekk ñu dem xool ko gis la fa nekk maanaam saytu ko indi ko ci commission bi ba ba luñ ci war a def comme action rek bu boobaa bu ñu ko jàngatee danañ xam lan lañ fa war a demee ak nan lañ fa war a deme wala kañ lañ a demee sax ndax dañ koy prioriser. am na tamit beneen commission bu nga xam ni commission de euh, supervision la tudd boobu tamit am na nga xam ni ginnaaw action yu ñu wande ginnaaw bu ñu saytoo la nekk ci ay demande wala expression de besoin yu teg commission de prospection dana dem saytu loola ba xam naka la loola demee woon lañ fa yóbbu woon nan la woon action ya mu am résultat ya lan la ak it bu waree am luñ ca war a toftalaat ci ay ay ay taxawaay ma commission de supervision boobee moo koy indi analyse war ko tegaat ko ba lu ñu war defaat ñu def bu fekkente ne tawféex am na ci aussi bu boobaa noonu lañ ko yemale xam ne xëy na lañ cee toppal accompagnement ak yu moom la loolu yeneen commission yu nu bokkal kuréel gi nga xam ne mooy commission sociale ak leneen bu boobaa dañ leen koy transmettre à ce que pour que wax dëgg yàlla loola ñu ñu koo taxaw euh, fii mu ne nag euh, ci ni ñuy liggéeyee keroog ba tey euh, pour defar départ d' abord ci logistique bi nga xam ne moom la ñu yore logistique bi fii mu ne am nañu cent trente moto pompe de moyen débit yu nga xam ni soixante mètres cube heure la ñu la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy génne am na aussi vingt sept moto pompe ak ay électropompe yu mag yu nga xam ni ñoom euh, maanaam débit yu mag lañu c' est à dire deux cent ba six cent mètres cube heure maanaam danañu ko dégager dana ko danañu ko danañu ko génne yooyu. bari na ci zone yu nga xam ne moom lañ ko def parce que zone yi gën a stratégie yi gën a compliqué il faut que moto pompe yu mag yooye moo fay nekk bu nga xam ne day nekk zone fix stratégique bu nga xam ni moto pompe yu ndaw yeneen yi ma wax nag ñoom la ñuy tasaare ci yeneen zone yi waaye du tasaare goo nga xam ne dañ leen di éparpiller déedéet dañu leen dajale en équipe ndax euh, quarante équipe yu nga xam ni bés bu yàlla sàkk danañu déployer sur le terrain ci ay quarante équipes quarante équipes danañ leen déployer maanaam ñu dem ci terrain bi jox leen ay moto pompe yu ndaw yooyu mooy yi ma wax c'est-à-dire de moyen débit ndax ay 60 mètres cubes la heure danañ dañu ko génne yooyu ñooy génne ndox yi nekk ci kër yi yóbbul ko moto pompe yu mag yi pour que moto yu pompe yu mag yi man koo jëlee ca gox yooya yóbbu ko ci exutoire yi nga xam ne définir lañ gox yi mu nekk nag gox yi tamit yaatu na ndax euh, yaakaar naa ne dëkk bépp bépp bépp la ñu ko dajale masalam fii au niveau de Darou am na yu fi nekk bokk na ci zone de pompage yi Guédé zone de pompage la Sourra zone de pompage la Sourra Lo zone de pompage la Daaru Rahman zone de pompage la Ndaamaatu gis ngeen na mu meloon Kër Ñang ku ne xam na na mu mel euh, yoonu Daaru ku ne xam na na mu mel Kër Sëñ son yu bu gii ci ginnaaw moom tamit zone de pompage la Daaru Minam bokk na ci zone de pompage yi euh, euh, Xaayira aussi bokk na ci zone de pompage yi guy mbind ci zone de pompage yi la parce que dëkk bi ci bopp moo bind noonu nga dem gede ga ca kaw aussi vraiment ay équipe a nga fay dem di dimbali nit ñi pour que ndox yi génnee ci biir kër yi mais chaque fois bu ñu déployé équipe yooyu tasaare leen dañu leen di jox oto joxe carburant bi nga xam ni moo war a ànd ak moto pompe yu ndaw yooyu chaque oto danañ ci teg à peu près cinq moto pompe équipe yooyu yóbbaale ko bu ñu demee nag zone de pompage bu ñu nekk maanaam du génn kër la ñuy pompe déedéet kër yi yéen na mu nemee la ñuy dugg ci kër gi bu ñu ko génnee dem ci géneen kër génne ñoom fa la ñuy yend bu ñu xësee départ fii 8 heures maanaam ñaari ba dañuy dellu si fii 19 heures la ñuy fekkaat fii am na ci ñu nga xam ni ci yenn zone yu critique yi dañu fa sax continuer dañuy dem ba 20 heures 22 heures moto pompe yu mag yi moom ñaari lañuy takk bëccëg maanaam amu ci benn bu nga xam ne dana fay maanaam aussi bi ñenn ñi tàng 24 heures sur 24 gi nii maanaam day am équipe yu leen di bu guddee ñii dañuy wàcc ñeneen ñi continuer ba le lendemain ñeneen ñi demaat jël jël relais bi ndax fa ndox mi di wàcc nga xam ne dañu koy draguer ci yeneen euh, ramification yi indi leen ko ñoom mënuñoo fay masalam fii mu na nii euh, am na benn benn moto pompe bu nga xam ni dañ ko teg ci zone fi Cheikh Bass dëkke moto pompe bu mag a mag la bu nga xam ni dana génn 600 mètres cube heure dana ko dana ko génne tuyau refoulement ba ñu ko tegal mat na 1 kilomètre 200. xam nga xoo zone boobu fi ma ko wax ak boo dee seet kër maam moom Mourtala maanaam ci jumaa ji boo ko dee seet linéaire boobu yëpp dañ ko tegal conduite et puis conduite bu mag a lañ ko tegal pour que zone boobu ma wax yëpp nag la fa wër ndox mu ci nekk ci kër moto pompe yu mag yi ñoo koy dégager tegal kon xam nga foofu moom mboobu moto pompe moom mënta fay noonu la mel ci boo ñëwoon Guédé ci fi nga xam ni moom la ñuy wax poste courant foofa ñetti électropompe lañ fa plongé équipe bu sapeur pompier moo fa nekk ànd ak équipe bu DPG yi moto électropompe yenu teg foofu boo dee seet mooy électropompe yi gën a mag sax ci dispositif bi ñu teg nii et à la place de moto motopompes là aussi Touba ci kanam quelque chose comme vingt sites yu nga xam ne fenn fu ne pomp nga fa yu nga xam ne ñoom aussi danañ génne six cent mètres cubes maanaam teg nañu ko masalam ginnaaw kër sañ son yi bu gii dafa lañ jógee léegi équipe de de de supervision bi moto motopompes yu mag lañ fa lëkkale bu ko xam kër Xaadim Gueye ba ba ngay ñëw ginnaaw kër sëñ Moustapha Saliou maanaam mbambum xur la wande jóge foofu ba ci station MK excellence bi nekk Daaru Xulóos day zone bu mag a mag bu nga xam ne déeg bi fi nekk déegub cosaan la déegub cosaan la ndax ñaari déeg dafa dafa dafa lëkkaloo dafa am cosaanul déeg bu nga xam ne dañ naan kimboo dafa dafa dafa nekk ci geneen wet gi beneen wet gi fële maanaam xuru ndon di mbambum xur mu nit ña dëkke niveau ndox ma ñu fa fekkoon keroog egg na ci ci presque boo dee boo dee dana mat 2 parce que romboon na fenêtre kër yi wande fii mu ne nii ak système de pompage ba ñu fa def fii mu ne nii ñu jóge fa ndox ma yëpp jóge na fa kër ya ndox mi génn na depuis keroog bi mu tàyyi pour won la efficacité stratégie yi ñuy teg vraiment pour évacuer ndox yi. loolu doon na benn explication ci système de pompage bi nga xam ni ak prospection bi ñuy def wante déploiement équipe yi nuy def ci fii ci commission technique bi nga xam ne dañu leen sant moom situation d'urgence bu ñu war a teg ci ndox mi ci dëkk bi situation loolu moom ñu taxawee ko boo demoon zone bu mel ni Kër Ñang am na benn bis bu nga xam ni cinquante moto pomp lañu ñu déployé ndoo dakk benn zone pour régler ko parce que dëkk bi moom ndox mi noonu rek nga ko gënee noonu la def ndaamaatu noonu la ñu def yoonu daaru noonu la ñu def guñ mbind du ñu yóbbu benn mot déedéet dañuy yóbbu mbooloo mu bari yóbbu logistique bu bari yóbbu moto pompe yu bari ak la leen di asti lépp pour que ñoom ñu yend fa fanaan fa pour régler zone boobu noonu la ñuy liggéey. maa ngi tudd Abdoul Ahad Bousso nekk président commission nga xam ne moo euh, aju ci kuréel gi ñuy tuddee junnatul liman nazamahu te Cheikh Mouhamadul Mountakha taxawal ko ngir taxawu ñi nga xam ne dañoo amee jafe-jafe ci wàllu ndox mi bi euh, kuréel gi nag euh, dañ ko nosee mooy dafa am président am secrétaire général am secrétaire boo xam ne mooy dox diggante nit ñi ak euh, public bi mooy en relation avec la public am itam koo xam ne mooy wàllu wér-gu-yaram gi ci yu noonu am itam commission boo xam ne mooy yore wàllu recasement yi mooy ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci fu ñu dëkk ñu jéem a saytu barab ngir yóbbu leen fa bi liggéey bi tàmbalee nag euh, ak léegi euh, fi mu seen liggéey mi ngi njëkk a tàmbalee ci ànd ak état bi forme benn commission boo xam ne commission de recensement lay doon. commission de recensement boobu fan yii yëpp mi ngi ci recensement bi ba jàpp nañ ne tey wala suba incha allah dana andi conclusion euh, recensement yi recensement bi nag xaw naa takku lool. waaye mënu ko ñoo jox ex nombre exact waaye lu mën a xew daal mat na fukki junni ay borom kër ak lu topp yoo xam ne ñi ngi jot nañ leen recensé. Euh, nombre exact bi nag mën a gut am ndax conclusion bi ñëwagut waaye lu mën a xew ramu nañ dix mille personnes dix mille euh, ménages euh, yoo xam ne rek nañ leen ba pare ñooñu ñëpp nag dañuy xool ak li ñu am mu nekk fi naka lañ leen di mën a dimbalee kenn ku nekk lu muy mën a am jafe-jafe yi ne yàgg na ak coono yi taxoon na fan yi ci ginnaaw xooloon nañu ñaar téeméer nit ñoo xam ne gis nañu ne dañoo sonn lool lool lool lool lool ëpp mënatuñoo xaar ñooñu ñu ñu ñu woon ci liggéey bi jox nañ leen euh, aslëf kenn ku nekk ci ceeb ak diw ak tuuti weccat woo xam ne danañ ci mën a jëfandikoo ngir dimbalee ko nit ñi loolu tànn nañ ci ñaar téeméer nit yoo xam ne joxe nañ ko ci fan yi ñaar téeméer yi tam dañ koo tànn ci dëkk bépp nekkuñu benn barab dañ ko séddale ci dëkk bépp ni dëkk bi bindoo ni mu wëree noonu la ñu euh, ko sélectionné fenn fa nekk ñu tànn fa ab lim rek maanaam man tànn nañ ci penku juróom fukk tànn ci sowu juróom fukk tànn saalum juróom fukk tànn ganaar juróom fukk muy 200 personnes ñu jox leen liñ leen di jox ngir ñu dimbali ko ko waaye nag euh, liggéey bi dëgg-dëgg daal mënu la sotti te recensement bi ñëwut recensement boobu nag jàpp nañ ne tey wala suba incha allah conclusion yi dina ñëw su ñëwee euh, la jay topp mooy xool li fi ne xool it ñi fi ne ak ñi fi ne nan lañ leen di nan lañ nan lañ lañ koy euh, séddalee ñu séddalee leen ko. xoolit nan naka la ñuy def ba kenn ku nekk la nga ca war a am mu agsi ci yow ci nam gën a jàppandee ci yow ba nga xam du la sonal du sonalit ñi nga xam ne ñooy dem ndax xam ngeen ne barab yi bari na ndox jafe-jafe yi accès ci yenn barab yi jafe na euh, waaye nag mën nañoo seet ay barab yoo xam ne dana jege nit ñi ñu nekk fa fexe ba nit ñi mën koo jël si te buñu egsee jot gi yomb ci ñoom euh, ñi nga xam ne dañoo euh, jot nañ fee déclaré wu itam ci wàllu wér-gu-yaram ci ay jafe-jafe itam boole nañ leen ak docteur yi docteur itam tabarakallahu taxaw nañ ci taxawaay yu rafet ba ñi ci ëpp dem nañ fa taxawu nañ leen ci seen wàllu wér gu ñi nga xam ne itam seen kër egg na ci mënatuñ faa nekk itam wutal nañ leen ay barab ba recasé leen képp koo xam ne manifesté wu na te li ñu fi am ci ay kër incha allahu ñu jox la ca fii ñi ngi am lu ñu joxe ku ñëw te te te manifesté wu tey jii rek recasé nañ ñeenti nit ñeenti famille yoo xam ne yóbbu nañ leen ci ay barab yu wuute te loolu ba mu tàmbalee ba léegi ñoo ngi ci yaakaar naa kër wàllu ñëpp dégg nañ ko euh, am na itam fële ci kër ci Baye Fall ga beneen site boo xam ne moom itam mbooloo mu bari ña nga fa am na itam yeneen barab ci biir dëkk bi yoo xam ne joxe woon nañ ko yoo xam ne recasé nañ fa ay nit liggéey bi daal foofu la tollagoon fi mu nekk nii actuellement dëgg-dëgg liggéey bi nag mi ngi ci suñ kanam mi ngi ci suñ kanam mooy recensement boobu ñu xool li mu indi ak naka la ñuy jëflante ak ñoom selon nag ci moyens yi nga xam ne moom lañ am. man la Cheikh Abdoulahi Mbacke. président commission finance bu junnatun liman nazamahu di kuréel gi nga xam ne sëriñ bi sos na ko Cheikh Mamadou Mountakha euh, te digal leen ñu taxaw ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi te liggéey boobu mu tàmbalee ci jëfi boppam mu yëkkati ñaar téeméeri million joxe te sant murit yëpp ñu mën cee participer kon nag euh, ci commission finance boobu ni mu tëddee mooy am nañ juróom-ñeenti membre ndax ñetti entité yi muy mairie bu Touba ak Hizbut Tarqiyyah ak Touba ca kanam ku ci ne da nga cay joxe ñetti nit ak xëy na ñi nga xam ne dañu ñëw pour jàpp si ci liggéey bi euh, loolu mooy li nga xam ne mooy commission finance bi tëddee ci noonu it lañ séddalikoo euh, am président wu commission bi am le secrétaire général ak responsable comptabilité ak itam euh, responsable tout ce qui est argent moo xam liquide la wala leneen lu mu ci mën a doon ak képp responsable boo xam ne lépp luy nature ak matériel ci moom lay lay lay lay lay lay lay lay sooyee ak ñoo xam ne xëy na ñu ngi ci liggéey bi ci wàllu am njënt loo xam ne dañ koo soxla te yàkkamti ko ñu mën a fexe nuñ ko mën a amee. ci noonu itam ni ngeen ko xamee sëriñ bi moo tàmbalee woon joxe ñaar téeméeri million jox ko kuréel gi sant itam euh, ñëpp ñëw jàpp ci moo xam taalibe moo xam jullit moo xam ku dëkk ci réew mi rek ndax ampleur-u euh, yàqu-yàqu yi taw bi dafa dafa yaatu lool dafa ama am solo ñi ci loru bari nañ lool boo koy seet tey ci recensement yi dem nañu 8000 huit mille euh, ménages te pareeguñu te pareeguñ ñi ngi jàpp ne mën naa egg ba dix mille ñoo euh, ñooñu itam ku leen bëgg a dimbale te bëgg leen a dimbale ci lu leen amal njëriñ euh, faaw dafa am lu bare bare lu muy laaj waaye nag alhamdulillah xel dal na ci ndax li sëñ bi départ départ bu am solo la bi mu ko defee itam am na ñu am solo ñu ko ci fekk si fekk si nu am solo ndax ni ki mairie bu Touba daal dina yëkkati moom 60 million jënde ko nature ni ki ceeb ak diwlin pour jàppe ko ci liggéey bi Euh, fu mel ni Sonatel itam gis ngeen ni taxawaay bu am solo lañ taxaw ndax jël nañ plus de cinquante millions jënde ko nature diggante ceeb ak diwlin ak suukar euh, duggee ko ci liggéey bi yamuñ ci loolu waaye génne quinze million ak waa Orange Money ngir defaree ko waañ woo xam ne ñi ñuy sinistré yi nga xam ne dañ leen recaser euh, quinze millions yooyu foofu lañ nekk leen ko toggale xëy na ñu def ci jot cee togg diiru fukki fan ngir toggale ko sinistré yi ku mel ni soxna Valy Mountakha itam gis ngeen participation muy cinquante tonnes de ak ñeneen ak ñeneen vraiment ñi ñi participer bari na xëy na loolu du du illay dégg dëgg jotaay bi dañu joxe rek ay échantillon ngir ñu mën cee dégg ni wooteeb sëriñ bi falilaahi alhamdu am na ñu am solo ñu ko wuy si ci xeeti am ci xeeti e, wuy si yin wu ama am solo. joxe ci beneen bu bu bu bu am solo muy sëriñ Baye Sy Mansour xalifa général de Tidiane e, yónnee na démb sëriñ bi 5 millions participer ko ci liggéey bi sëriñ bi yónnee ko kuréel gi moom itam loolu lu symbolique la. waaye itam li ñu soxlawoo ci liggéey bi bari na lool xaalis am na ci solo ndax daanaka lu bari moo koy doxal waaye lu mel ni ceeb nit ñi dañ koy woo ndax dund bi jafe nañu ci bari seeni dundu dund dafa yàqu seen i kër ciment sax am na ñu koy joxe te soxla woon nañ ko. ni ki carburant aussi commencé nañ naam euh, sous-préfet doté nañu ci lu tollook mille litres. waaye euh, jàpp nañ ne doyut tax commencé nañ di jënd ndax am na yeneen ñu ko fekk ay participants waaye yooyu jeex na ba ñu ngi jënd fi mu ne nii te day dox bu baax a baax ci liggéey bi ni ki moto pompe yi nga xam ne nii moo yore liggéey bi ak yeneen yi ni mel muy matériel moo xam ay auto vidange wala lu mu ci mën a doon rek liggéey bi soxla woo na ko lool. ubbi nañ ay compte bancaire maa ngi li mu mbooleem ñi nga xam ne nii am nañ fa ay compte te baax na nit ñi xam ko ngir lu ci bëggee a bu mu mën a jàppante ci yow. Euh, banque islamique mooy compte bi njëkk ubbi moom la bi dugal de 200 millions yi BSS suñu partenaire la am nañ fa compte. Ecobank euh, am nañ fa compte. Otard banque am nañ fa am nañ fa compte. am nañ fa compte LBA. Hmm, hmm, LBA NBA aussi ak BCFI. am nañ fa compte ak F banque yooyu yëpp am nañ fa ay compte bu dee euh, monnaie euh, transfert d' argent yi Wave am nañ fa compte bu am solo ci li junnatun liman nasamahu Orange Money am na Free Money am na yooyu yëpp ay jàppandi kaay la yoo xam ne wut nañ ko ngir jàppandala nit ñi nga xam ne dañoo am yéene participer ci liggéey bi euh, ci ndigalu sëriñ bi wala sax ngir yàlla wala sax ngir humanité ñu mën a jàppandi ci ñoom ñu mën a fexe ba mën a jàpp bu baax a baax ci biir liggéey Euh, noonu daal lañ tërali ko procédure yi nga xam ne ni ci la ñuy liggéey mooy ginnaaw bu ñu organisé wax nañ leen président secrétaire responsable tout ce qui est nature responsable d'argent euh, comptabilité ak yee ca aju yëpp lu ci ne mbooloo seq ko ñu teg bureau di ci liggéey euh, ci noonu it procédure bi ñuy liggéey mooy commission yi yëpp képp ku ci am loo xam ne yitteewu nga ko mu mënta ñàkk ci liggéey bi commission yi ni mu tëddee am nañ cinq commission commission administrative am na commission sociale commission technique ak commission communication euh, loolu yëpp nag dafa tax commission bu am loo yittewoo ci loo mënta ñàkk da ngay bind sa expression de besoin jox ko commission administrative ñu xool ko bu ñu gisee ne lu mënu na lu jaadu la lu liggéey bi mënta ñàkk def la ñu jox ko kilifa yi mooy ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp liggéey bi coordination bi bu ñu ko validé jox ko commission finance commission finance itam ci anam yooyu lay génnee dina bind. Euh, da ngay indi da indi li nga xam ne moom nga jëlee ci administration bi bañ validé ko nga jox ñu ñu sukkandiku ci loolu euh, bind bon jox la moo xam bu dee xaalis la bon boobu dañ koy bind yow mi ko war a récupérer nga signé ci ñu bàyyee ko fa moom mooy dem comptabilité bu dee xaalis bu ñu lay jox la ñu jox la ko bu dee nature la itam noonu lañ la koy joxe mu am trace yow nga am ko loolu it mooy dem comptabilité tax na waxtu wu mu mën a doon. bu ñu soxlaa xam exactement fan la yëf yi tool mooy lan moo fi duggagun lépp bañ tàmbalee ma léegi dañ koy mën a xam man koo joxe mi ngi nii ci kayit yi ma yor lan moo fi génnagun dañ koy xam bu ñu demee ci détail mën nañ laa wax lu ci ne it fan la dugg ci biir liggéey bi euh, ci ndimbalul yàlla nag wax dëgg yàlla organisation bi xawul woon a yomb ndax entité la boo xam ne dañ ko doon soog a créer créer entité bi pour ànd liggéey loolu ab liggéey la woon waaye ci ndimbalul yàlla ak sunu taalibeeg euh, ak pas-pasu liggéeyal sëñ Tuubaa jàppandi na ba lépp tegu na ci yoon woo xam ne waxuma la lii waaye leneen lu dul lii buñ ko jëloon muy lu rëy rëy dénk ko kuréel gi mën na koo doxal ci lu dul benn jafe-jafe. maa ngi tudd sëñ Cheikh Mbacke di doom ci Serigne Moustapha mu Serigne Massamba Mbacke. jiite commission communication bi. commission communication dafa transversale mooy lu communica beneen commission di liggéey ñun ñoo ko war di tasaare. moo tax ñu ne nañ ko tëgg tëggin woo xam ne dañu am fépp accès tax. ñu taxawal ko mu am li ñuy wax président mooy ko ca bopp ba nga xam ne décision yi bu ñu àggee ci décision finale bi moo ci décidé ñu avancé ci buñ ci amee consensus. am itam ku ñu wax coordinateur am ay équipe muy cadreur yi am ay rapporteur am itam ay équipe yoo xam ne ñooy dem ci terrain bi di jëli image yi di indi pour ñu koy mën a distribuer. junatun bi mu fi sosoog léegi matagul fukki fan wala ci lay yem te fépp ci àdduna bi ñu ngi ko fay dégg fépp ci àdduna bi ñu ngi participer di ñëw kon war ngaa xam ne commission communication ñi nga am lu ñu liggéey loolu nag weesuwut li ñuy def ñu koy vulgariser ba ñëpp di ci am vision bu claire bu leer waaye itam di dégg liñ leen di expliquer mooy li nga xam ne nit ñaa ngi ko fi indi ñi ngi koy wax. nit ñi di ko dégg ñu koy filme nit ñi di ko gis li nga xam ne nit ñaa ngi ko fi jëlee itam li nga xam ne nit ñaa ngi ko fi jëlee itam ñi ngi koy booleeg ay équipe ñu dem bu ñu demee ñuy gis nit ñi ndimbal yi leen di defal fan lañu leen koy defal ak ñi ñuy toxal yëpp ñu ngi koy filmer di ko tas ci plateforme yi waaye di ko tas ci rajo yi ak yi. looloo waral ba ñu commencé ak léegi defegoon nañ fi lu ëpp 35 PAD yoo xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi. ñu ngi ci site internet yi waaye ñu ngi ci télé yi di daw moo tax li nga xam ne xëy nañ def ko bu ngoonee ñu monté ko buñ xëyee tasaare ko àdduna bi fu waaye toll xam ne na Liman Nasamahu def na lii démb foofu lañ toll ci wàllu diffusion yi. dañoo tànn treize rajo locale yoo xam dañ leen defal spot une minute trente séddale leen ko ñu koy jàllale quatre passages par jour rajo bu ci nekk. informer nit ñi ci numéro vert bi mooy 800 00 44 44. site internet yi jël nañ ci lu mat 22 sites yoo xam ne ñi ngi ci région bi di leen jox boole leen ci benn groupe boo xam ne PAD bu ñu def fa lañ koy dugal ñoom ñu jël ko man ko diffuser. suñu ay partenaires la yoo xam ne ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax ay jàmbaar lañ ci liggéey bi ba ñu tàmbalee ba léegi avant ñu leen di regroupé kenn ku ci nekk yaa ngi doon liggéey. ci sa yoonu bopp waaye nag pour comme dañoo yor commission communication ñu bëgg lépp tegu ci harmonie moo tax ñu boole leen ñoom ñëpp dugal leen ci benn group ne lépp loo xam ne produir nañ ko ba mu officiel nga xam ne junnatun moo joxe ndigal ci mu génn danañ ko dugal ci groupe bi kenn ku ci nekk ñoom récupéré ko boo ko récupéré dugal ko ci sa site exploité ko comme say lecteurs say téléspectateurs man ko suivre donc noonu la ñuy liggéey ñoom lépp luñ xëyati def ba ngoon bu ngoonee dinañ def journal du jour boo xam ne dina jàll ci plateforme yi jàll ci site internet yi jàll ci télé yi ba àdduna bépp xam ne junatu li mën na sama xoo ñi ngi dimbale nit ñi waaye fii lañ toll ba ki nga xam ne itam laalu ko waaye muy toog de chiffre information yi mu mën a xam activité bi ñu def fan la wa